mooy euh, euh, li nga xam ne moom gën a metti euh, Bougane ak kii waajee Sonko e man Bougane laa sax mën a dóor ndaxte man Bougane sama mag la ñoo bokk lu nuy def waru topp Sonko ci Euh, euh, jeu bi ndax daggasante bi ñu ñuy daggasante nii ndax euh, dëgg-dëgg man rafet lu ma ko sax si ay jigéen waxuma laa nag ay kilifa ñu toog taxaw di dàgg daggasante ba presse interposé kii mbéj fee kee kee kee tulli ko fële loolu ce n'est pas ce qu'on attend de nos hommes politiques si ñoom ñaar dafa am ko waroon tene te ko waroon tene dama jàpp ne bugaan la waroon la waroon doon lu tax ndax bugaan Sonko xamul luy communication après naa ñëw ci kaaw